laaj ne man daal am njaay indi jóob ji kilifa yi nekkee jamono ji nag ci delloowaat kii di Ousmane Sonko ci list électorale yi man daal jaaxal na ma mandataire bu Ousmane Sonko di Ayib Daffé nag waa DGE nanguwuñu koo dalal Sud Quotidien ne moom kay dañu ko lànkal nag lu jëm ci fiche de parrainage yi nga xam ne rek booba léegi mi ngi koy sàkku yéenekaay bi ne boo moytuwulee nag forclusion dina am nag ci candidat opposition bi jàllam kay ca conseil constitutionnel moom boo moytuwulee dina doy waar ba tey ci yéenekaay bi di Sud Quotidien mu ne Ousmane Sonko moom bokkam ci yi dina doon lu ñuy xoolaat ndax kii di mandataire am avocat wam ak huissier ñoom ñëpp nag dañu leen a dàqee ca DGE yebal leen ca daaf ñii di avocat yu Ousmane Sonko ña ngay ñaawlu nag saay su nekk jafe-jafe yi nga xam ne rek ñu ngi koy am bu ñu demee foofee ca DGE ay dafa ne kilifa yi nag lu ñuy xaar ngir dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi ay hauts fonctionnaires yu toll na ñoom nag mel ne ay xale yu ndaw yuy jouer cache-cache maître Ciré Clédor Ly ne lii moom ab coxoo dëggantaan état de droit moom amatul fii ci réewu Sénégal moo waral nag moom avocat bi ma ngay communauté internationale bi ak ñii di grand électeurs yi ngir ñu daal di wax nag ci li nga xam ne moo xew fii ci réewu Sénégal la tey moo yëglekaay xam ne ni jamono ji nag DGE ak waa ñoom nag nee ñu mukk nag du ñu jox Ousmane Sonko lii di fils de parrainage yi te du ñu jëfe mukk nag dogal yi nga xam ne juge bu Ndakaaru jël na ko ngir dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi yéenekaay bi di Les Échos na ayib dafekay seenub huissier ak kii di maître Ciré Clédor Ly ñoom ñëpp la takk dérité ca buntu DGE ni leen nag du ngeen fi dugg tey du ngeen fi dugg ëllëg laas yëglekaay des ba tey ci lan moo waral nag kilifa yi jëfeeguñu nag li nga xam ne rek moom moo jëm ci leetu àttekaay bi daal di tëral nag te mooy delloowaat Ousmane Sonko ci biir liste électorale yi looloo waral nag mu ne DGE moom ma ngay barricadé wu bés bi le jour moom di àddu jamono joojee nag ci investiture bu Amadou Ba ci ni ñu ko defalee woon nag kii di Macky Sall ci atum 2011 yéenekaay bi ne ndax kiit fat dana mel ni jàmmalaay looloo waral nag mu dippeekoo la le défi de jàmmalaay yéenekaay bi di dellu siwaat ci discours bi nga xam ne rek yëkkati woon na ko moom Macky fukki fan ci weeru décembre atum 2011 daal di diggée nag lu toll ci 500000 emploi mu doon loo xam ne nag ba nëgën si des na doon lu ñuy waxtaanee lu jëm ci xëyum ndaw ñi candidat Amadou Ba nag jamono ji moom la ñëpp yi xaar ak discours bi nga xam ne rek war na koo yëkkati yéenekaay bi di l'enquête xëy sëgg ci beneenub candidat mu di Anta Babacar ngoom yéenekaay bi ne nag faaw mu xeex dëggantaan ngir mën a jéggi nag xaaxaam yi nga xam ne moom ne ci yoonam moom moomee nag ñu bëri jàpp ne jàmbaar la ba noppi nag ab liggéeykat la ma ngay xam ne ne nag dina def kéem kàttanam ngir mën a doon kiy jiite réewum Sénégal Sénégal jamono joojee nag le soleil ma ngay àddu jëmale ci transfert de fonds yi nga xam ne rek ñu ngi koy jëlee ci diaspora bi mu ne toll na ci milliards ci atum yër leen yëglekaay bi tëj gi nga xam ne rek tëj nañu ko lii di université yi moom Mamadou Ndoye jàpp na ne nag lii mënta weesu ab sabotage yéem ak Abdoulaye Seydou Sow di ñaawlu nag ci biir yëglekaay bi di le quotidien comportement bi nga xam ne rek administration bi am na ko mu ne ca Parcelles Assainies xaw tuuti rek musiba daal di fay am ba président bi jàllee ñaari minute rek lañ ci teg ab bâche daal di fay wadd loolee waral nag muy ŋàññi nag accueil bu bon bi nga xam ne rek moom la ñu leen accueillir ci seen service yi libération nag boobee jamono ma ngay fësal ne huit virgule six milliards ci ay faux billets nag jot nañu koo teg loxo ci weeru décembre teg loxo gu mujj gi ñii di waa brigade de recherche bu Kër Massar ñoo ko daal di amal tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ak stade ci wàllu CAN 2023 bi nag Lamine Camara ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne